plan ba nga juri fa sang sur mo ne nga def dan lay xé ya ngi dégg nga ci am ci li nga nek la ba ci seigne touba defal la ndam li gën ci yow inshallah rabbi ding ko am ñun ñëpp jox nañ la loxo jox nañ la loxo ba am nañ def wax deug fa yalla gis na li yalla la sopp da xaw ma la xale xale bu ñu yokk meloon na yow barki Serigne Touba Mbacke xale na jëm incha allah rek dem fa dem mais bu ma nee xeex barki Serigne Fall la barki Serigne Touba Mbacke xale bu ñu la soor dañu naa ne xeex bu mag baa ngi nii billahi wala la bëgg billahi dama ko bëgg barki Serigne Touba Serigne Bara laa yaakaar ni billahi wallahi dama xamul fu may aw ba ñëw ci yow waaye kon li nga xam ne man bi billahi jël ko mu baax dara laa bëgg waaye ñaari boo duggee sama téléphone say vidéo rek ma ci nekk Yes. Djibril Fall fas yéene leen représenté ci assemblée nationale caravane baa ngi noonu di seen noonu ci caravane bii di leen romb seeni buntu kër muy Pape Djibril Fall ak coalition les serviteurs mbokk yi génn leen seen ay kër waxtaan ak Pape Djibril Fall moom mi nga xam a ngoog muy Pape Djibril Fall damay jooy barke Seexul Xadim. billaay wallaay ñun dañ la dañ laa bëgg ñun dañ laa bëgg du ay rubé de du ay rubé dañ laa bëgg. yow lañ àndal. dañuy ñëw dama sama bëri la ma jox. waaw. barke Serigne Bara yàlla na yàlla may la. sama biir xol laa ko tuddee barke Serigne Bara. 418 415 24 590